salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci mbiru Diary Sow jaari Sow nag nekk meilleur élève ci atum 2018 jàpp 2019 ci noonee sax lañ ko yóbbee France ngir mu jàngi jee foofu ci université Louis le Grand waaye moom jaari Sow nag lu mat fukki fan wala lu ko ëpp moom kenn gisu ko moom nag jaari Sow bañ ko gëjee gis ci feetu Noël yi la ndax nag moom gannaaw ba feet jàllee moom Diary Sow moomule demul jàngi ci noonee sax la ñi nga xamante ni moom moo di waa école bi daal di signaler fi nga xamante ni moo di ci Diary Sow fa mu dëkk ci noonee nag lañu ñu daal di xam ni que kii di Diary Sow dafa daal di disparaître boobu ba tey nag bëri na ay information yoo xamante ne nii daldi nañ koy fësal ci réseaux sociaux yi ak ci site internet yi waaye kii di parrain di Serigne bay Thiam nekk ancien ministre de l'éducation moom nag moo daal di confirmer disparition wu Diary Sow moomu le bëri na ci ay information yoo xamante ni nag ay fausse information la rawatina nag bii mujjee génn muy circuler ci réseaux sociaux yi comme quoi Diary Sow dafa feeñ mu ànd ak audio boo xamante ne ni ñu ngi koy def en pulaar mu ànd ceeg benn xale bu góor information yooyu nag nekk na ay information yoo xamante ne ni c'est pas avéré maanaam information yi dara du ci dëgg ndax kii di Diary Sow ba tey kenn gisagu ko ba tax na nag membre yu comité bi nga xamante nii étudiants sénégalais yi nekk foofu ca France ñoom ñoo ko daal di taxawal ngir yombal li nga xamante ni moom moo di seetu jaari Sow moomule ñoom nag dañoo xaw a mer gannaaw ba nga xamante ni nii nag nit ki démb ñoom daal di woon nañ jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñoom daal nañu def ay précision yu ndaw ba ca njëkk mooy ñoom li leen xaw a jaaxal mooy li nga xamante ni moom moo di autorité yi mooy consul général bi ak ambassadeur bu Sénégal foofa ca France li ñu daal wax rek ni que jamono ji xibaar yi nga xamante ni daal nañ koy jot daal dina dal xel ba noppi piste criminelle bi privilégié wuñu ko ndax nag ñoom xalaatuñu ni que lii affaire crime la ci noonee nag ñoom question bi nga xamante ne nii moom mu la ñuy laajte moom moo di ñoom